saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 bërki démb Thierno Gueye la woon démb Tapha Kandji tey sunu làmb moo indi jàngat diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 moom ab laajam la samp jëmale ko ci Boy Niang 2 xool ba xam ndax Boy Niang mu moytu Balla Gaye 2 Boy Niang 2 bu xamoon li nekk ca Balla Gaye bant bu gudd la koy xal di laale Boy Niang bu xoolee ci Modou Lo ak Tapha Tine dana moytu Balla Gaye 2 bu baax Balla Gaye mooy mbër moo xam ne boo ko merloowee bu ngeen duggee ci géew bi dana la wex xat Modou ak Tapha Tine ñam nañ xam nañ ca dara kon Boy Niang bu toppee Balla Gaye teg ko sok teg ko faar mbaa du ñam la gaay yi ñamoon en journal ba xam ne mooy mbooleem ña lakkaloon Balla Gaye am na fu Balla jaar ak ñoom bu ñu jàllee ci écurie Fass dañ leen di fekk ñu mel ni ñu dem pause foofee journal ba xam ne mooy ñetti ténor ya fa nekkoon di Lac Rose Forza ak Gris Bordeaux ñoom ñett kenn gisu leen kenn déggu leen ñu ne Gris Bordeaux bu doon oto moom panne day wër ku ko dépanne Lac Rose mu ngi à tàkkul saxatul Forza mu ngi ne këcc fi mu xam ne am nga combat boo du lijjantee di fenn loolee moo waral depuis le 24 ba léegi Forza amaatagul kenn ku ko tàllali loxo bu dee la grosse moom le 3 ba mu daanee moo daanee Tyson ba léegi dafa paan depuis boobee la gëj victoire moom Gris Bordeaux loolee moo tax journal ba xam ne ne ñett ñoo ñëpp ñu ngi am paan muy Lac Rose di Forza di Gris Bordeaux kenn puusul kenn paasul foofee ci sunu làmb la ñuy fekk coach Diabo jabong may wax ci MMA ak mbër yi di ci waaj a dugg Baye Mandione guy gi ak Abdou may waaj dugg ci MMA coach si jabong ñëw na ca la mu xam mooy képp kuy mbër tey takk ngemb te nekk ci làmb ji mën nga cee dugg MMA sport la boo xam ne mbër yi ma gis ci Sénégal ñépp ci mën a participer li ma leen di dolli kay mooy mbër mu ci bëgg dugg na jàngi weex wuti résistance dolli ci li mu am loolee ko wuti ba dolli ko ci li nga am mën ngaa nekk champion ci MMA mbër yooyu mu tàllal loxo yépp bañ nañ ko waaye Malick Niang dafa bëgg adversaire ba signé retouram keneen ka bëgg adversaire mooy Sa Thiès gannaaw ba mu jógee ci defetam ci Boy Niang 2 teg ci année balance moom dafa bëgg a dellu siwaat am combat am victoire moom depuis 2018 ba léegi mu ngi xaar adversaire ba yebbi la ab meram ñaari defet yi mu am ci carrière ci digganteem ak Malick Niang digganteem ak Boy Niang 2 tax na mu xam fan la jóge fan la jëm tax na mu xam lan moo ko war ak bu la ciy duggee jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci etu yéenekaay